jërëngën jëf suñu mbokk internetu ugfm point ñoo ngi leen di jaajëfal ci taamu bi ngeen ñu taamu saay su ne di ànd ak ñun ba tey ñu def benn doxantu bu am solo fii ci asini. asini ah fekk si fii ndaanaan bu mag ah di doomi parcelle bokk ci làmb ñu naan ko jos jos ñoo ngi lay nuyu. oui maa leen di fay. jos ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare retour jos Zoss hmm? fan la toll ci làmb waaw euh, maa ngi euh, sant yàlla d'abord jullit seen naama salaahu salaam sant samay waajur euh, sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel ak képp kuy bëggee Zoss képp kuy bëggee do dorat di bëggee aussi ñuy jàpp ci ci ci ci combat yi à chaque fois ak di jàppale yooyu mel ni soxna ay Aïda Saliou nek suñ nit bo xamantene ne kenn mënu kenn mënul lim ta te to to to limoo ko ndax day def acte yo xam tay ça fait partie li nga xamantene mo moom moo ñu encouragé daal donc euh, voilà fuñ ñu toll nag mooy ñu ci entraînement yi comme dab di préparer euh, sunu plan bi nga xamantene moy Boy fay ko ñaanal yalla may ko ndam waaw ci lañ nekk ma ngi entraîner aussi di wax euh, actuellement.

xam nga dafa war maa ngi ci liggéey bi waaw ak sama coach Togola ak sama coach Biaye. mën nañu xam ban façon adversaire lañ lay proposer wala. ak ban adversaire moo ko gënal fi mu toll. non adversaire moom amoon premier adversaire parce que koo ci ne diw laa soxla mu foog ne da nga kaa da nga affaire yooyu noonu donc je préfère euh, xaar rek bañ joxal defal ma proposition. donc du ma si tudd kenn parce que def naa ci làmb loo xamante ne awma pour laaj benn mbër voilà au contraire mbër ñooy daw jox ma sos jox ma sos voilà mais man ma awma pour laaj kenn damay taxaw xaar rek. man su ma la doon proposé Tidiane Faye loo yor. non awma problème Tidiane Faye adversaire la parce que Tidiane Faye euh, nekk na adversaire bu bu kii mais cherul xam naa waaw. no cheru ci kache parce que man xam nga lépp lu may dugg moo nin laa koy joobee time is affaire bi time is moo nin la. Tidiane mu ne dafa taxaw de. non on a discuté même pas que mu taxaw noonu kenn kenn kenn mu ko doon wax waaw euh, ñu ngi ñu ngi doon coow aussi sama combat ak Moussa mais xam nga moom saa yi da ngay dafa ma xaw a ragal tuuti ko xam naa. Moussa Ndoye daf yenn saa yi du moom du wax si combat bi parce que dafa xaw a ragal xamuñ hmm? non dafa xaw a ragal xam naa loolu xaw a ragal ko affaire bi du si day kii yooyu yëpp ak ëpp doole gars yi maa ngi ëpp doole. ëpp doole ëpp doole dàq leen bëre waaw parce que boo xoolee ñi ma daan ak ñoom ñi ñu daan bokkul. est-ce que sos ba woon ak bii benn. Eh, dafa am différence sos ba doon dugg stade mbër jugee fële di ko dëkk mu door ko croisé est-ce que jos boobu ak bii benn. waaw mais tax loolu mooy différence bi mais la mooy différence bi jos boobu moo toog nii de pour lan te am ñaari jos. am na jos bu ma xamoon boo xam ni que bu duggee stade vraiment ku ko ni jàkk xam ni jos a ngi nii di ñëw. gars yi da xam ñaari jos wala ah <laughs> mu tax sama gars yi dañ lay jaaxase de <laughs> benn jos moo fi nekk ba léegi waaw. waaw Jos laataa. bii moo gën a tàng sax Jos bii moo gën a tàng. leer laa lay wax waaw. am ni ki moom di la jàpp lu ku nekk nag si àdduna bu la jàpp bu la bàyyi rek nga dem waaw loolu kese la ak ci côté yëpp nag ku ne la jàpp bu la bàyyi nga dem te ñu ngi ci ñu ciy liggéey bu baax a baax. Jos bu ñu indi woon Bathie Seras nag looy nooy def ak moom. non Bathie <laughs> mi ngi ci état actuellement. non non mais du ma du sama adversaire parce que boo xoolee maam ñu ngi en 2006 mu gagné ma 2006 ma jël sama revanche 2008 boo bëri dama ko raw ci làmb yaa ngi dégg boobu ba léegi adversaire yi may jël yëpp amul kenn ku mu ci mën a daan n'est-ce pas. combat combat amateur la de. combat amateur non mais man sacrifié wu ma samay victoire dama ne la dama jël ay risques jël guy gi ñu foog dañ may daf may daan ma daan ko. yaa ngi dégg jóge fa daan Boy Niang jóge fa daan Tidiane fay daanaat guy gi dugg ci calaf bi kon du ma daan Issa Pouye xam nga donc du ma ñëwaat di sacrifier sam bopp ci ay koo xamante ne bokkutuñ niveau affaire de niveau la quoi au fait lu coow la woon passé na passé na comprendre nga mais sama adversaire actuel yi nii nii nii nii loolu moo tax ñu wax mais pas adversaire yooyu mu du sama adversaire hmm. ñi ku ma si jàpp dama lay defaral dama lay foowee waaw jàpp dama lay daan dama lay fay non Tidiane Faye sax je pense pas quoi. ay victoire yu bari la tegale fi mu toll nii. non non tegul ah mu cher sax cherul. ah mais kon ma dem defi kii wala menuisier bu dee lay bañ dóorante ah mais ma ne bu dee dafa am may calculer ci combat bi. ma bañ a nekk mbër man maa choisir dugalante ay arrêt kay a problème. pare nga pour pare naa pour Moussa Ndoye pare naa pour keneen ak keneen parce que moom rek nekk fii moo la wax bëgguma di tudd tur. comprendre nga mais li ma pare mooy pare naa pour bëre tout ce qui est adversaire voilà tout ce tout mon adversaire genre loolu mooy pare tout voilà.